Camara moom en matière d'idée ça va gongo ah sincèrement livre bi am naa ko ëpp na six mois hmm. ou bien bon bi mu ko génnee toujours jox na ma ko mais ah. euh, ku mel ni Boubacar Camara doyen nan la war a mun a def ba sénégalais yi mën koo jox nopp mën koo déglu hmm. di ko boole ci major yi parce que sénégalais yi voté aussi c'est bien beau plateau yi ñuy def mais am na niveau débat fu muy toll non ñoom lijjantiwuñu ay Sigma ay General Motors ay ceci ay xam lu ñu lijjanti sama njëgu courant bi nan la war a wàññeekoo daar daar ndox mi daar daar njàngum école mi daar daar dund bi diwlin bi ceeb bi parce que bala ngaa lijjanti li ñëw suba gannaaw suba tamit biir bi il faut que am lu fi nekk donc Boubacar Camara ni nga ko gisee doyen naka la war a mën a def ba campagne bi vraiment buy wax mu nekk ki nga xamante ni sénégalais lamdaa bi bëkki gën a suufee dina ko dina ko jox nopp waaw man mën naa wax daal euh, peut-être euh, deux exemples pour le thème diaspora par exemple euh, lui il illustre tous les deux que euh, la manière politicienne de faire la politique elle ne marche pas au niveau de la diaspora ce qui marche chez la diaspora c'est une politique concrète hmm. ça c'est la politique c'est euh, maîtrise de la technologie mm-hmm. maîtrise des finan du financement maîtrise il faut que la politique soit concrète mm-hmm. qu'elle soit pas politicienne c'est une promesse bon, je pense que c'est heureux que lui qui représente euh, Boubacar ils, ils sont conscients qu'il y a une offre politique à faire à la diaspora mm-hmm. loolu je pense qu'il doit aller dans ce sens-là euh, mais pas de manière généraliste il faut offrir quelque chose de concret un projet pour la diaspora c'est pas des idées non il faut offrir un projet qui puisse convaincre euh, l'intellectuel le travailleur le jeune euh, le, les étrangers bon il faut un projet un projet pour la diaspora à mon avis bon je prenais l'exemple tout à l'heure du transport technologique mais lui c'est un exemple patent comment Boubacar pourrait convaincre toute cette expertise sénégalaise à l'étranger dans un projet par exemple sur l'industrialisation il a un volet très important sur euh, l'industrialisation il a beaucoup réfléchi sur l'industrialisation mais là je pense qu'il faudra qu'il aille vers un projet vers euh, du concret bon. maintenant pour le Sénégal Boubacar il, il a beaucoup d'idées il a une ambition mais le pro problème de Boubacar comme tous les autres cas c'est le discours mm-hmm. gis nga discours bi ngay wax ak diaspora mm-hmm. bokkul dara ak discours bi ngay wax ak sénégalais yi mm-hmm. yow li nga wax bon par am ceeb diwlin transport c'est un discours différent c'est un discours du quotidien du quotidien du quotidien là il faut qu'ils se battent pour... sinon non si tu des idées pour pour ñoom les idées ça compte pas Oui, oui. As les idées, tu rêves. Oui, tu, tu, tu, es en train de raconter ta vie. Mais ça n'a pas changé. Ça a changé Mais si le, pas, hein, Non, je veux dire que... De plus en, en plus, cas, les gens sont pour... plus ouverts par rapport à ça, par rapport au programme et autres. Non, pour les, pour les, pour les Sénégalais, mm. c'est Beykat. Arachide, ça fait des, des, des, siècles et des siècles. Mais qu'est-ce que tu proposes aux paysans mm. Ça, c'est pas de la théorie. Ça, c'est une politique concrète. Ouais, euh, l'eau, l'électricité, la formation, l'engrais, mmh. la mécanisation, mais c'est une politique concrète. Mais ba léegi gisuma encore un leader qui dit voilà la politique agricole que je propose. Pourtant. J'ai pas vu, bon, il a des idées, mais j'ai pas vu un projet. projet. Un, bon, si je prends l'industrialisation, ñoom ñëpp dañuy wax industrialisation, Macky a commencé par lui. Il a fait 12 ans. Qu'est-ce qu'il a industrialisé? absolument rien. pourtant il a eu yoonu yokkute il a eu PSE il a eu des séminaires. mais def na ci clin d'œil au mécanicien mais mais parce que la la politique c'est pas un discours. sa na leen clin d'œil de nee na leen xaw ma ñaata hectare bu fa dajalee kër ba wax sax ay milliards yu mu war a générer. mais leneen li ma bëgg laaj doyen mooy. non attends je termine est-ce que waaw jàppale ma rek jàppale ma rek pour yow la. dama seetlu candidat yi. Mm-hmm. chaque jour dañu naan su ma ñëwee dinaa def lii dinaa def lii dinaa def lii. li ma seetlu ci ñoom mooy lan moo tax doo jël l'existentiel ni par exemple Prodac mu ngi fi. c'est les hmm. les domaines agricoles communautaires les programmes de domaine agricole communautaire man su ma ñëwee je vois que c'est un bon programme de de du du du régime. Hmm. finissant man su ma ñëwee dinaa ko gën a mottali non non non ñoom dañuy ñëw ni dinaa ñëw def lu bees. xam nga lu bees xam nga lu bees boo ñëwee nit ki nit ki danaan gi day góon nañ ko fii. alors que boo nee l'existentiel bi l'existant dinaa ko jagal parce que ni ko sama prédécesseur defee moo baaxul. yaa ngi ci plan jagal bi de boobu laa jagal bi de. non jagal moom baatu wolof la. mooy mooy wax na ko léegi ay jooyante ay jagal ak. non pourtant il a dit tout de suite par rapport ak li nga xam ne moo fi dañ ko war a defaraat. jagal dindi dindi des waaw léegi waxtuma jagal ñoŋal ñoŋal. non <laughs> non dañ koy ñoŋal. jagal moom ñu ñoŋal mooy mooy c'est-à-dire que il faut les cadres là. il faut qu'ils rompent avec euh, le, le, complexe intellectuel. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas, un livre qui va faire voter les Sénégalais. Oui, oui ça c'est sûr. Mm. Même les militants, là, les militants de Boubacar, ils n'ont pas lu, tous. Mm -hmm. Même si on suppose qu'ils ont tous lu, ils ont des compréhensions différentes. -hmm. Mais comment maintenant quitter le livre Le livre, c'est l'idée globale de Boubacar. Mm, comment traduire cette idée-là C'est ça la politique. Maintenant, euh, bon euh, comme tu dis. par Comment exemple rendre ce livre physique. noonu lañ ko mën a waxee euh, physique. même pas physique. waaw ouais, c'est que le gars puisse gars puisse entendre. gis nga wax gi wax am na loo day commencé rek man ma dem sama. moo gën a gaaw a dugg ci xol. parce que dugul duggul suma nopp. mais programme livre aussi c'est un c'est un pas parce que bu njëkk. nit ki da nga naan da ngay politique. léegi ñëppay génn boo demee ngay mexe wax ko waxu der. nga dem Saly Portudal wax fa waxu tourisme di jànnaxe rek di dem di dóor rek di dem di xoolal. waaw attends je te donne un meilleur exemple. léegi boo fi génnee titre livre. ëllëg si bi ñu ni la livre je te donne pour moi mon meilleur exemple c' est Cheikh Anta. waaw en France aux États-Unis partout. dans le monde kan moo xam Cheikh Anta. waaw mais nag mais nag doyen ma jox la benn expérience. mais parce que on n'a pas on n'a pas trouvé le génie des marabouts par exemple. Cheikh Amadou Bamba il a beaucoup écrit. mais gaañu bu ñu yeewoo le matin à 6 heures. gis nga soo jëlee quel que soit le moyen de transport. xasida seen xasida <laughs> vingt minutes ils sont concentrés. ba yegg fa nga jëm du ñu faale kenn. ñu dem ubbi seen boutique ils sont concentrés toute la journée. ba so c'est cette pédagogie là. que mm-hmm. qu'il faut aller chercher. Mm-hmm. comment vulgariser les idées. Mm-hmm. pour man bon c'est la difficulté de de tout le monde.